Kéba ak le grand ingénieur de son Pierre ñëpp ñi xam ne rek ñu ngi teewlu waxtu wii di seetaan ba mel ne Soña ca Maroc Mbay Diouf ci HLM ci guy gii ak ñëpp rek ñu ngi nuy suivre benn par benn waaye ñu ngi commentaire ñu ngi nuy addu ci seen ay téléphone bu émission bi jeexee di commentaire émission bi day continuer à chaque fois au téléphone Ablaye Diang ñëw na waaye Ngoone aussi ñaan ne saa soo xam ngeen ko ñëw na ñoom lañu dalal pour terminer thème bi nga xam ne moom lañ fi yor depuis quatre jours muy temu fin d'année feet yi ci am feet yi nekk ci diggante yi bis yi nga xam ne yi moom la nit ñi di jël seen bopp moomale ko guddi gi xale yi moomale seen bopp dëkk bi mu nekk événement bu euphorique euphorisant di yëngal xale yi pétard yi di takk ñu nekk ci beneen aal nekk ci beneen level nekk ci beneen niveau mais mu am ci lu ciy rax ci suuf loo xam ne lii buñ ci waxul dafay yàq aveniru xale complètement ci benn guddi boobu nga am 16 ans 17 18 19 20 benn guddi boobu yàq sa 60 ans nga xam ne daf lay topp à vie journaux yi wax nañ ko tey sondage yi wax nañ ko benn xale bu ci yàlla nattu wala mag ba nu violé la ndekete day am jeexital ci yow ba dootoo sax bëggati sax góor ci sa àdduna te war a am ay doom mooy def muy loo xam ne lii lu war a di moytu la ci bu événement yu mel noonu amee nga xam ne nit ñi dañ koo yàq léegi ba nga xam ne finalement day nuroog bisu yàqukaay ak yàqaate góor ñi ak jigéen ñi di ci daje di def loolu loolu la ñuy eggalee suñu waxtaan tey Ngoné maa ngi lay nuyu di la wax Axel ci Yoor Yoor comme d'habitude asalaamualeykum. waaleykum salaam sëñ Baara maa ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay di nuyu suma naataangoo bi am Ablaye Dieng. Hmm. jangeen bi ko jox wàccuwaayam. <laughs> c'est vrai que yéen ñaar man duma ma suur tey ndekki. jang ak. jang ak ñang ñang la sant. mu ngi noonu maa ngi koy nuyu bu baax di ko jox waa ci di nuyu groupe euh, Walf bi yëpp. Mm-hmm. Walf TV Walf net bi. Mm-hmm. à travers réseaux sociaux bi. Mm-hmm. ñu joxe seen participation mu nekk lu am solo ñu koy suivre partout. maa ngi leen di nuyu ñoom tamit di leen jox seen waa waay waaye di nuyu sama waa sama yaay ak waa Kasoor. ak ñi fa nekk ñëpp di seetaan. di nuyu sama borom kër monsieur Mbaye. Mbaye Baba ak Mbaye. waaw Ndiogou Mariam Dieye mbay Mbaye Baba Mariam Dieye Moustapha Mbaye maa ngi leen ak ñi ak ñi nga nekkal ñëpp maa ngi leen di tey sëñ Bara macha allah am ñëw ci lu am solo. Mm-hmm. nañ ciy développé léegi. bu soob yàlla waaw incha allah. Ablaye Dieng oustaza. waaw ah, danga dongo ya. ñu ngi si jàmm yaa oustaz ah, yaa oustaz naka naka nu ko waaw mm. maa ngi lay nuyu Baara di sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi di nuyu ñi ñuy seetaanee ci réew mi ak ci bitim réew mm. di am mbégte ak kontaante dikkaat ci plateau bi comme d'habitude mm-hmm. di la wax ne sañse bi macha allah rafet na ah. yaa ngi may jéem a tendance mais dangaa màgget nag ah, waaw sañse mag ñoo gën a civilisé sañse xale yi moom jeune la quoi sañse mag ñoo gën a civilisé bu la bu la Mor nu mu tudd euh, Fass Barigo. Mm, ah, Mor ke nu mu tudd. Mm, bërki la may woo di ma wax euh, ay jeunesse ak ay mm. ay loolu sax li ma wax duma ko wax fii <laughs> damaa ree bay bëgg a dee. loolu la quoi mais sa sañ sa na. macha allah diggante taar ak. ndaweeg goneeg yu deme ah, noonu daal. Ah. waaw ci yooyu la duggoon. xale wu mais boo demee ba ban may tëkkaleeg yow nga xam ne kon yàqu nga. yàqu yàqu na de wala yàqu na. <laughs> di la ziyaare bu baax di nuyu soxna ngoone mu sell mi di ko nuyu di soxna Ngóone matab baab ya li muy tagg waa ji di ko baaw ay dig jéem a kii mais dara dafa jonge rek waaw ah, waaw mais waa ji dina ñëw bu soobee yàlla bay baar am naa mbégte lool di dikkaat ci émission bi di la jottali nuyoo waa Saloum mhm. sama dëkku maam waa kër sutura tukulóor waaw keroog samedi yaa ngi wax demoon waaw waaw fa laa demoon ñu ngi waajal sama ziyaare maam nag le 6 mhm. janvier incha allah foofu la mhm. ci kër sutura tukulóor di la ci invité bu baax incha allah jërëjëf ñu ngi noonu ngóone xale yu jigéen yi la wax toujours ñooy perte seen yaay aussi daf fay tëlbëti ndax daf leen a bëggoon a xeexe ngemb sa mbër di xaar bis pour bu dajee mu bàkku nekk sa mbër nga di ko dóor ci kaw nit ñi wutal ko jëkkër ji mu war a am bu wujjee mooy daan mooy ëpp doole waaye caaxaan ak topp bëgg-bëggam moom nga topp ko ci tax na mu fakk talu daal ba ba ba ba perdre li mu waroon a am lépp muy valeur mën nañ ko faa filmer muy wëndeelu ci vidéo yi ñu koy chantage. mën nañ ko fa def leneen ak leneen te dañ fay màndeeg lu nekk day xew daal. ci benn guddi daal yàq moom moo gën a gaaw defar ko waaw xam nga comme ni nga ko waxee yàq moo gën a gaaw defar. ci mhm. lépp nag ci bépp côté. Mhm. waaye comme que euh, doom man damay dégg ñu doon wax sëy xare la boo ci amee doom. jam nan la. am ñu naan say doom ñooy say avocat ndax ñoo lay layal ëllëg. taxawaay bi ñuy taxawee société bi. yaay buy bind lettre na mbind mi leer. ñoo lay àtte parce que doomam moo koy liir ëllëg. moo koy liir ëllëg. Mhm. donc doom alal la. Mhm. et puis dafa sax ci xol. Mhm. alal joogi nag noo ko mun noo ko war a sàmmee. loolu mooy wax bi. parce sa alal boo ko sàmmul mu nax saay. donc loolu moo ñu dal tey ñu bëri dañoo dañoo fay ci côté boobu. xamuñu ñu téye seen alal dañuy am doom nii duñu xam doom bi lan la représenté. luy arrivé yaay ba muy sàggane doom. non euh, ci ci euh, ci kii bi éducation bi. Mhm. yarin bi. bu fekkee yow dafa am noo yaree sa doom. Mhm. baara mhm. su màggee noonu dong la mën a la mën a doxalee. xam nga kenn ku nekk li nga jàng rek ngay tari bu fekkente ne yow danga ko yar yaru yaru yaru bàyyi ko mu demal boppam. parce que dafa am tamit waajur yoo xam ne ñoo bëgg lu yomb. am na conséquence yoo xamante ne ci xale waajur bi moo koy jëmbat. da dañoo bëgg lu yomb dañ koy yar yar bu yomb bàyyi ko mu demal boppam mm-hmm. de des fois da ngay dégg ñu ne xale bi dafa yarook sagoom mm-hmm, mm-hmm. moom yarawul ak sagoom waajuram moo ko yaree ak sagoom donc bu fekkente ne yow waajur bi d'abord la mooy sa éducation parce que éducation bi nga yor nga mën a jox say doom waaw li mu nàmp lay tàqamtiku lay tàqamtiku des fois xale màgg am yenn melokaan yi bu ko blaame dama nga xooli waajuram nu mu ah. su ko defee yow bu fekkente ne am nga éducation d'abord mm. léegi yow nga jur sa doom mm. éducation bi nga am bu baax bi bi ci jiitu. Mhm. mooy diine ak l'islam. waaw moom nga ko jox. waaw bu demee kër maamam fan la yare yow yaay ji. waaw éducation ba la fay fekk. la fekk dañ koy gën a dëgëral. dañ koy gën a dëgëral. Mhm. moo tax ñu ne lu lu yëngu lu ko yëngal ko ëpp doole. Ah, am na kaset yoo xam da nga koy arrière boo ko arrière xale bi doo ko balaamee ci dara. Hmm. boo gisee xale mu màgg am yenn melokaan yi. Mhm. boo arrière da xam ne kii ci famille bu baax la bokk. arrière grand grand mère grand père yëpp. macha allah kenn mosu leen day baax day baax mm. mu am beneen yar boo xamante ne yaru matérialiste la mm. boobu moo gën a garaaw mooy tàmmal xale bi ay sañse ay yër yu rafet anniversaire anniversaire yu yu yu yu yi mm-hmm. di woo ñëpp ñuy ñëw mba boor mu gis loolu loolu lay màggaale folklore boobu Aliwin am na xale yu may gis ci internet bi ay tabaski ko te dañ leen takkal ay or ñu fees del seen kii yaram bi ñu mm-hmm. solal leen lu lu lu lu rëy loo xamante ne mag ñi sax ñemewuñ duñ ko ñemee sol mm-hmm. donc kooku su màggee noonu day foog ne loolu mooy valeur àdduna mm-hmm. fekk na du loolu xale da ko war a jàngal doylu d'abord yow fekkente ne dangaa da nga ko jàngal doylu mm. loo mënti am bu dee tey sombi la day xam dañoo sombi. Hmm. bu dee suba ginaar la day xam tey dañoo ginaar. Hmm. ba pare doylu ak maanu surtout ma hmm. jigéen. yaru jigéen dafa am solo. dafa am noo koy yaree ni mu war a toogee ni mu war a waxee ni mu war a lekkee ni mu war a comporté woo. mais lépp rek li ci jiitu rek mooy diine d'abord. parce que diine bu jiitoo ci yow. bu feesee ci yow. am na yoo xamante ne baar boo màggee di ko jommali def sa bopp mhm. bu fekkee daf la yar yarul jomm mhm. foo mën ci dem parce que après xale bi su màggee mooy demal boppam waaw yaay gi du fa nekk papa gi du fa nekk mhm. léegi nag li xew tey ñi nga xamante ne dañuy dajaloo li ci gën a garaaw mooy sax la plupart duñu xamante mhm. duñu fréquentante mhm. duñu demalante duñu dikkalante mhm. internet bi moo leen boole foofu la ñuy xamee defante suñu groupe dajaloo xamante après chaîne lay doon kenn ki wax ko si waa euh, koñam kenn ku ma ku ma ku gën a jege kooku nekk bokk naa damay participer ñu dajale seen xaalis ak nu ñu ko mën a amee nag danañ cotiser. Mhm. ba xaalis mat li ñu soxla. Mhm. ñu dem jëli villa. Mhm. léegi xeeb nañu appartement. xeeb nañu néeg néeg yi chambre yi. villa la ñuy dem louer. villa bu ñu louer villa. dañ fay nekk deux jours ah. am na ñoo xam ne ci région yi la ñuy jóge ñëw fii fekk suñu Dakar. léegi ñi jóge ci région yi ñoom lan la ñuy tàggu seen waajur. Ah. ñii ne xew la ñuy dem uh-huh. wala mariage uh-huh. wala sama doomu diw magam mooy takk ja wala lii uh-huh. diw boobu xamoo ko mosoo koo gis est-ce que waroo xam sa fréquentation doom d'abord ah. ñi mu war a àndal fi mu war a dugg fi mu war a génn mais doom da daan am cinq euh, cinquante xarit gën gaa bari waaw parce que boo demee primaire waaw bokk ak cent personne classe waaw am nga ca cinq yu góor ak yu jigéen yu sa nekk sa wëllëre nga ñëw deuxième classe. waaw CI. waaw première. waaw ainsi yi boo leen boolee ba ak si université. waaw fu nekk ramassé nga fa diis xale. dix xale. yow tout te retrouves finalement. waaw ak cent copin ah, ak cent copines yoo xam ne. ñoom ngay jaay. waaw vente en ligne. waaw boo amee événement ñoom ngay dégganteel. ak yu demee noonu. léegi nag ñooñu ñëpp léegi nag. léegi nag loolu mooy bu njëkk. waaw mais léegi. Mhm. da am cinq mille ami mhm. cinq mille. nga toog fi nga toog sur place dix mille amis. boo wanee li nga sol rek te dafa goo dara de. Uh-huh. ñoom ñëpp ñu apprécier. Uh-huh. dañ lay jay. Uh-huh. di la yéegee. da dem ba am grosse tête. tu te prends pour qui. te tojagoo fenn ah. mais ay ay ay ay toj nga fi yaa leen dàq li nga sol. fi nga génn macha allah macha allah. loolu mooy remonter sa. adrénaline ba nga ba nga defe ne yow. bu gaynde wàccoon nga jàpp. jàpp ko bu nga tàllal sa kooku nag. dara du ko téye. déedéet dara du ko téye léegi yow bu fekkente ne xamoo loolu yëpp xamoo sa doom fu muy dugg fu muy génn ñi muy joxalanteel ci néeg bi lay toog di teg àdduna bi ah. voilà comme li nga wax léegi. Hmm. léegi moom bu fekkee bàyyi na loolu yëpp ba tàggu la ba nga bàyyi ko. Hmm. ñun bu ñu daan tàggoo bu ñu daan tàggoo mbokk sax bu sori. Hmm. bu amee xew ñu war a dem fanaan dañ naan doo leen dem. Mm-hmm. même te mbokk gi la de. Ah, waaw waaw kon ñemewuñu tàggoo jàmbur. Mm-hmm. pour dem ay fanaan ak yooyu. voilà moo tax ma ne lépp ci yarin bi la. yarin bi la léegi bu ñëwee dugg ci mm-hmm. kër gi. kër gi dañuy commandé lépp la ñuy commandé dañuy commandé lekk. commandé naan. bu drogue bu saf suukar ak bu saful suukar. Mhm. parce que xale yi léegi lépp la ñuy utiliser. Ah, waaw waaw am na ay volets yoo xamante ne tàngal la yu ni màcc. Mhm. léegi bu ñu ko jëlee tàngal ko seen sago lu nekk fay xew. boo màccul ñu def ko ci sa kaas. lu nekk fay xew bu seeyee nga naan ko. après nag yow ngay gis conséquence bi ci kanam. macha allah que ce soit grossesse wala leneen. voilà mi macha allah Ablaye. waaw Ngone mu ne il faut que yaay ji yar ko. Mhm. mais yaay ja. ak jigéen ak diine. Mm-hmm. ni mu baree ay faay. Mm-hmm. donte am na ñu baax. Mm-hmm. ustaasa yi ma doon jum sànq. ñooñu xam nga ay internat la ñuy yor. seen i doom fa tabaarakallaaw. trois ans sax dañ lay muur. waajal la. mais am na ci ñoo xam ne. li ñuy xaar ci ñoom. ci côté diine ci seeni doom. ñoom kenn yarewu leen ko fële. Mm-hmm. kon amuñu capital bi. te ay commerçante lañu. Mm, amuñu wala ñuy liggéey. liggéey di xëy 6 heures du matin. bàyyi la ak benn mbindaan li Alioune Sall naan boo dàqee mbindaan mi rey nga yaayu xale bi. Mm-hmm. bu ëllëgee nga indiwaat beneen mbindaan mu indi beneen jikko. beneen jikko mm. boo dàqee kooku. xale bi day mujj na mais man à quel saint me vouer. moo tax xale yi parce que. ñu leen di yar ñoo bokkul ko bu dee école sax benn maîtresse dana la yor une année hmm. toute naa ne entière hmm. mais kër gi lu mat vingt personnes hmm. da ngay dem ba perturbé bu doon nag ñëpp ku ñëw alxuraan lay ëndaale ah. <laughs> ah benn benn institution ah. benn constitution la du changé du changé Ablaye yéen ok jërëjëf Baye Bara thème bi amatina solo ndax euh, xale yi li tax ñuy war di ci waxtaan chaque fois mooy ñoom la yàlla wax almaalu wal banuuna ziinatul xayaati dunya mhm. cest à doom yi ak alal yi ñoom ñooy ñoom ñooy taaru àdduna mhm. kon li li yàlla tuddee taaru àdduna loolu dafay am solo ñu koy waxtaanee waaye dama dégg ku tudd yar rek dangay tudd yaay mhm. loolu aussi war nañ xool coloration boobu lan moo ko indi waaw loolu dafay dellu ci waxu yonantu bi li mu waxoon ne yaay moom mooy école bi doom bi di jàng ak di si seetlu. Hmm. pour mën a mën a mel ni ni mu war a mel. ci société al ummu madrasatu. waaw al ummu madrasatu waaw macha allah gis nga. kon euh, yaay dafa am solo ci dundu doomu aadama bi waaye li nga wax sànq moo am solo c'est-à-dire est-ce que yaay ji liñ koy xaare moom yor na ko. Hmm. ndax arab arab day wax ne faaqidu shay'i laa yu'tihi c'est-à-dire ku amul gerte boo ko ñaanee gerte mënula la koo jox. waxaale loo yor njëgam. voilà waxaale ak loo yor njëgam euh, yaay ji ñoo ngi xaar ci moom mu yar doom ji waxuñ mu yafal ko. mais mu yar ko mais si lan la koy yar xam nga yar aussi ñun toujours da nga naan rek yar nañ ko mais ci lan lañ ko yar mm. ak lan lañ ko yaree mm. ba euh, ñun nag ci diine buñ ne yar rek alquran ak sunna moo tax ñu ñuy wax mm-hmm. alquran ak sunna ak suñu aada yu baax yi mm-hmm. ci loolu voilà ñu basé wu ci loolu moom mooy suñu yar mm-hmm. léegi nag yow su fekkee yaay ji moom euh, jàngut alquran jàngut sunna xamul nañ lañ war a yaree doom ci ci ci diine kooku boo ko ko joxee naka la koy yare kooku yaa ngi ko jox rek muy yafal man na yafal mais mënu koo yar cest à balaa mu koy mën a yar d'abord moom yaay ji il faut d'abord mu am lu mu yor pour mën ko joxe. baay bi aussi. baay bi aussi voilà baay bi li nekkoon responsabilité mooy bu demee di wuuti ak soxna. Ah. mu dem wut soxna soo xam ne. Mhm. Euh, dina ko mën a yaral njabootam. ci lam gëm moo ca lam gëm. Mhm. fii nag ngay duggee ci fi ñu toll tey ci contexte bi mooy ci weer wi ñu toll. nga xam ne ñu ngi ci 31. 31 24 31. ma nga xam ne bëri na ay wax yu ñu ciy wax. Mhm. est-ce que concerné na jullit ñi. est-ce que concerné wu leen. loolu d'abord jullit bi daf ko waroon a xam parent bi daf ko waroon a xam est-ce que lii concerné na ma euh, moo xam parent bu góor bi walla bu jigéen bi su boobaa ñu mën a xamal xale bi est-ce que lii xew est-ce que concerné na la est-ce que concerné waxuñ baax na mu baaxut est-ce que ko ndax mbir dina baax te concerné wu la. Mm-hmm. mbir dina bon te wu la. mais lu baax moom. Mm-hmm. ñëpp la baaxal lu bon ñëpp la bonal c'est valable pour tout le monde. c'est vrai mais diine aussi xam nga diine ay texte la. Mm-hmm. l'islam ay texte ñoom ñoo ko régir. c'est-à-dire daf ne l'islam lii mooy texte yi lii mooy l'islam mais lii mooy texte yi. ku ko jàll rek da jàll feneen demee feet bu nekk dafa am mhm. principe bu tax ñu koy def mhm. xam nga tey boo ne tabaski dafa am lu tax ñuy tabaski mhm. yonent yàlla ibrahima moom moo tabaski yonent yonent bi ñëw yàlla ne ko wattabi millata ibrahima xanifan toppal sa yoonu maam yonent yàlla ibrahima nga tabaski kon kooku xam nañ ne lii yàlla moom moo ko ko digal kon ñun loolu concerné nañ waaw ñoom am nañ sax tam xarit donte yàq nañ xam xarit voilà ñun mhm. léegi loolu moo ñu concerné mhm. te xam nañ source bi lan la mhm. mais boo demee beneen fet aussi dafay am source c'est-à-dire yow mën nga koo jàppee lu léger mais boo demee si sa diine koy bañ mais booba mën nga caa rafetal aussi parce que ñun rafetal bi mooy rafetal bi weesuwul nga neutre ci rafetal neutre hmm? mooy lan parce que feet moom bokk mais mënoo ci toggal sa waa kër añ reer bu nekk ci lu neex feet ak feetoo ma am na ñoo xamante ne seen kër la ñuy nekk dagale seen famille waa xam nga voilà xam nga xel mu rafet ngay li ngay wax rafetal la comme li Baara wax léegi li ngay wax ni xel mu rafet la dëkkin wu njekk waa waaw xel mu rafet la dëkkandoo bu rafet l'islam tënkuwut ci xel mhm. l'islam dafa tënku ci ay texte mhm. cest à dañuy wax ne isa batala al aslu batala al fasl euh, batala hmm. ci ci arab dañuy wax ne su fekkee ne cosaan li yàqu na rek hmm. li cay meññ dafay yàqu hmm. comme que principe bi sa sa diine d'accordu ci rek yow waroo cee bokk loolu moo indi lii ñuy wax même bu fekkee yow da nga koy def pour jëlee ko à la yow defoo ko ngir ñoom li tax ñu koy def su ma déggee sa mooy fête bi musulman yi bokkuñu ci bokkuñu ci donte ne am na borom xam-xam yu koy layal di naan affaire u calendrier affaire leneen ak leneen mais ñoom boo dellee ci ñoom dañ lay wax lan moo tax ñu koy feetu ci ñoom lii tax ñu koy feetu yow sa diine d'accord ci mais ñoom nan koy feetoo dem église waaw bien sûr def seen ay messe def seen li nu li nu li ñuy dund ci seen pas-pas. waaw loolu rek lañ leen ci xamal ah. seen kër. ñun nag ñoo ci boole ñun loo xam ne lii. Mm. comme mënuñoo dem fële. ñun ñu ne nan jaar fee. mooy li nga wax ne loo dugg te lislaam dugalu la ci. Mm. yàq gaa nga ca fin ba. muy sa fin ba ca ca yàq ga nag leen toll nii. danoo sopp xam nga ñoom dañ koo organiser. Mhm. am nuñ koy defee ak fu ñu koy defee. Mhm. cest à boo demee foofu bu ñu la invité woon yow boo ñëwee dañ la naan lii dafa dagan na si sa diine est que dañ lay jox yàpp bii lañ lay jox nga mhm. lekk. man gis naa koo xam ne dañ koy invité mais dafay dem mais bu demee yàpp bu dagan si sa diine kooku lañ koy jox mu lekk ko. kon ñoom am na nuñ ko organiser di ko defee. léegi yow li la war yow en tant que jullit. mooy nga maandu ca. nga xaar sa feet bu ñëwee nga feetu cest ñun am nañ feetu korité am nañ feetu tabaski. am nañ feetu tam xarit. Hmm. sëriñ bi feet yi doyut. gàmmu yeeg gàmmu yaa ngi fi màggal yaa ngi fi xale yi xamuñu loolu de. waa oh, voilà xale yi nag gis nga foofu lay responsabilité <laughs> foofu lay responsabilité ñu ñàkk leen a yar ci diine. Hmm. foofu lay dikkee. Hmm. c'est-à-dire ñun dañuy yor benn maasu xale boo xamante ni xàmmeewuñ lan lañ moom ci diine ak lan lañ moomut. ñoom lépp lu ñu leen wax ne fel la rek jàpp nañ la ca lañ bokk. mais Ablaye jamono bi est-ce que benn yaay. sañ na. tere doomam dara. ba ci portable bi. ak ay yaayam teg ko fi. parce que am na ñoo xam ne dañuy duul seen doom ba pare xam nga ba sañ baara gis nga gis nga dañuy wax ne eh, jamono ji yar amut. mais man dama weddi loolu. Hmm. jamono ji yar mu ngi am na ak ak jamono ji gis nga yar dafa yar am na bu baax a baax a baax. cest à jamono ji la na yar gën a jafe. mais jamono ji sax la yar gën a bëri. mais da ngay xeex ak moom kon. waaw non xam nga boo koy ñun ñu koy ko bu ñuy def kii bi euh, nuñ koy waxee bu ñuy def seetlu bi dañ naan bu njëkk ba démb dégg naa ku ko fi wax bu njëkk ba mag ñi nañ nii lañ doon yaree nii lañ doon defee nii lañ doon defee dëgg la mag ñi nag moo wax la li ci ëpp li ci ëpp dañ doon yafal waaye yaruñu ah hmm. waaw ñu li ci ëpp laa wax mais mag ñi mënoon yar moo tax moo taxoon ñu téye seen mais ma rek ma développe man lu ma ma lu ma la wax li ma la wax mën naa ko leeral c'est-à-dire jamono jooju hmm. li li permettre nit ki mu mën a yàqu melu nit jamonoy tey jamono jooju pour nga njaalo yombut pour nga sàcc mën na nekk mais pour nga rawale ko yombut mm-hmm. pour nga naan sàngara yombut mm-hmm. pour nga tux cigarette yombut mm-hmm. jamono ji loolu mooy suñ problème mais je te défie parce que yow jamono boobu noonu cigarette bi ngay wax amoon na sàngara amoon na yombeewut nii mu xam nga yombeewut soo waxee leen ma d'accord ak yow am na ñu seetaan dem lu koy siwal moo amul waaw loolu mooy yomb. mais amoon na ñu ko doon def. non amoon na ak xam nga bu. accessible rek loolu mooy yomb def non. xam nga tey am na koo xamante ni juddu na am na jamono yu weesu am na koo xam ne jundu juddu na ba dee mosul tëg bët sàngara. waaw musul tëg bët cigarette. musul tëg bët lii ñu wax poon ak leneen. non daawoo gis sàngara sax mais. daawoo ko gis ku naan. Mhm. du ñibbi rek nga daan gis. voilà yow daawoo ko gis. muy këy bu xamoon lan la. Mhm. foofu laay waxee cest à diir boobu lii waral nit ki bon yombut mais jamonoy tey li waral nit ki bon da ngay gis tey euh, xam nga ko ne wax na da ngay nekk sa biir néeg nga toog fa fekk xale bi war na juróomi continent yëpp te mu ngi ci biir néeg bi génnul di bon ci biir néeg waaye bu njëkk yi ni am léegi la voilà bu waaye bu yow boo tëjee sa kër rek yaa ngi ci sécurité waaye tey tëjal kër gi tëjal bâtiment bi tëjal néeg yi taxul nga nekk ci sécurité ba tey yaa ngi ci mbedd mi mais jamono jële man maay fàttali sama bu doon tëdd ñun même bu ñu nekkee ci buntu kër gi dafa ñuy dugal ci biir kër gi tëj bunt bi moom bu demee tëri nekk na ci sécurité hmm. mais tey ji boo boo ñu dugaloon ci kër tëj taxul nga nekk ci sécurité kon jamono jooju li waraloon nit ki bon loolu yombutoon maanaam sa doom bu daan génn hmm. ngay tiit ngay tiit mais léegi bu tëjoo bu tëjoo ngay gën a tiit ci ngay tiit nag waaw ndax da ngay tëju génn ma ngay def loo xam ne lii génn si biti da internet bi wanee àdduna tukki waaw da ngay génn mais Ablaye hmm. bu njëkk waaw danga daan dégg taaxuraan. Mhm. am na ñuy wàlli. Mhm. danga daan dégg ndëpp. Mhm. gone yi dañ leen ko daan tere. am na ñuy wàlli. daan dégg tëllëj. benn bant yomb lay doon bu def nii. am ay tur ñu di ci tëgg. am na ñuy wàlli. te wàlli bu nekk ak la fay xew. tama yi tëggkat yi. ak nan leen daan wane seen bopp ak seen i façon. Ah. mais da daan nekk lu discret. entre ñoom la. jumtukaay yi benn groupe la milieu la woon. mais jëf gi amoon na mais jëf gi amoon na. non ñoo bokk li ñuy wax. mais jumtukaay yi ko doon siiwal xam ko loolu moo amul woon mais man loolu laa wax. voilà waxuma woon amul woon. léegi nag boobu itam Ablaye. waaw ñëwal booba population bi. dëkk boo dem cent personnes fay ah, nekk. waaw département ba yëpp. Mhm. du mat deux cent. mille personnes du du bari. Mhm. Sénégal gépp boo ko boolee. ci deux millions wala trois million lay toll. Mhm. kon dara mën naa xew dakaar un mois après. nga koy doog a xam. nga koy nga nekk Louga di ko doog a dégg. mag ñi bu naan jàmm sante. alhamdulilah baari kàllaw alhamdulilah baari kàllaw dañuy bañ a wan ne. ana ana ana ana njuga mm. nga ne ko ah yow foo ne woon. ngeen dee na. waaye nag boo ne ana waa kër gi. Mhm. ah xam nga rek njuga moom xam nga ne moom waaw waaw moom kay moom lu metti mhm. doo wal doo laaj kenn. da ngay jàmm sante ñu ne paa bi moo mën a jàmm sante mhm. de moralité bi mu lay def yow. ni ngi lay interviewé. di nga ko wax information yépp ba du juum. parce que du fadik. ngénte ñu yóbbu ko ayubis. parce que dañuy takk fas war dem yëgle ko. kenn bañ a wax ne yëguma ko. tudd da ngay toog ba mu am ayubis ba mu wër ne xale bi dana dund léegi da ngay échographie. quarante cinq xam lépp. <laughs> ci hôpital bi lañ. trois mois xam nga koo koy tuddee. parce que xam nga ni góor la. Hmm. wala xam nga ni jigéen la. dëj bi wala ngénte li benn bis. Hmm. lépp tey lañ koy yemale jooju. Hmm. c'est parce que whatsapp bi wax na ko ñëpp internet bi wax na ko ñëpp. loolu lépp nag baax da nga wàcc suñuy valeur. loola nag wax ah. léegi nag pour nu am xam-xam góone pour nu am xam-xam nag léegi. tolloole loole andi ko fii jéem a adapté lii fi nekk tey. loolu la borom xam-xam yi war a gëstu. Ah. foofu mooy coow li léegi nag il faut ñu dellu suñuy valeur d'abord parce que ku ku wàcc yow li nga moom. Mhm. boo demee jël yëfu jàmbur ngay jël. te boo jëlee yëfu jàmbur foofu la coow li nekk nag parce que doo ci am sago doo ci am yemukaay. Mhm. kooku nga jël yëfam xam na nu mu ci yemee xam na am na ci sago mën na maîtriser wu boppam. mais yow miy dem fekk ji yëfu jàmbur ngóone ngóone ñun yëfu jàmbur yëfu jàmbur mas di jël ñun fii lay maandu gi maandu gi fii ah, lay xam nga lislaam bi ci arab yi la jógee mais la moo tax ñu ne euh, jullit moo tax ma ne la sànq jullit day doylu fii lay maandu hmm. xew xewu ñeneen nga maandu si fii amee solo loolu mooy suñuy valeur c'est-à-dire yow boo ci duggee mën nga cee ëppal waaw da da nga ciy ëppal te da ciy am da ciy am lu la ciy fekk léegi yow Ablaye mhm. ñun buñ maandu woon ci lislaam mhm. kañ la ñuy nekk jullit buñ maanaam yëfu jàmbur. ay nit ñu ñuul lañu. gëm ay xëm ay ay ay xërëm ay lu lëndëm. Cheikh Anta ñu ngi ci événement bi. bu dundoon day am téeméeri at. yàlla na ko yàlla yokk leer. dégg benn xale wax bu wax lu neex ci rajo bi mu ne. oui c'est bon ñu wan sunu savant yi. ndax ñu mën leen a jéem a raw. maanaam ñu roy leen. ba jéem leen a raw. Mm-hmm. xam nga loolu moo am solo. Mm-hmm. mais Cheikh Anta ñooñu. Mm-hmm. Afrique gii nangu nañ ne lépp fii la déparé. si léegi nag ñun danoo am suñu yi bopp yoo xam ne yii ban nu bëggee teg lu nu mënul. danoo daw ñun ñun ñëw fii toog fii ah. ñenn ñi daw jëm ca kaw weex. ñenn ñi daw ñële jant bi. di teel a jóg moo leen tax di piis. ba seen bët yi gis nga chinois yeeg japonais yi seen bët yi mel. benn lanu mm. mais biñ toogee ba nekk suñu yëf mm. yor suñu yëfu bopp mm. bi euh, l'islam ji ñëwee dañ ko dañ koo dalal surtout ci booru fuuta bi mm-hmm. mais séeréer yi fa nekkoon séeréer raabe dem nanu ña demoon danoo daw ne ñun kenn duñu imposer gis nga Buur Siin ak Maba Jaxu fi nu mujj mm-hmm. kenn duñu imposer ndànk-ndànk lañ ciy dugg dañ ciy dem ak suñu sago bi tubaab yi ñëwee aussi côté bii côte bi foofu lañ jaare ñoom dugal seen façon ñoom itam. boole kook ay stratégie ubbi école di di def ay don di dimbali nit ñi ak yu demee noonu mais ñun ay gan di leen dalal moo nu tax a nekk jullit buñ ko dalal woon duñ ko nekk léegi itam ñun instant kenn terewuñu ko. non non ah? terewuñu ko de xar may ma foofu. Ibrahima dama fay leeral lu am solo may ma hmm? foofu xam nga alquran. Hmm? dafa wax lu leer yàlla daf ne boo beddee kenn ci yonent yu ma yónni rek. Hmm? bokkoo ci lislaam bi. en tant que jullit mhm. nga weddi kenn ci yonantu yi ci diine ji yàlla daf diine daf la digal nga gëm yonantu yëpp mhm. amana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi ba fu muy waxee laa nufarriqu bayna ahadin min rusuli mhm. amul kenn koy bedd ci keneen ki c'est-à-dire gëw ma ko boo gëmoo Isaa yow génn nga ci diine ci voilà loolu moom pour ñu leeral ko leneen li li nga wax suñ maandu woon xam nga euh, yeneen yonantu yëpp boo leen jëlee daf leen di Euh, yónni ci benn xeet ah. mais yonentu bi ñun mënuñ maandu ci moom mhm. ndax yonentu bi yàlla daf koo yónni ci àdduna bi yëpp wa maa arsalnaaka illaa kaafatan linnaas waaw léegi nga ko xam ah, ah, waaw léegi nga ko xam kay da koo dalal dama dalal ba xam jikkoom mhm. miin ko ànd ak moom si mais dañ laa mais dawee rek mhm. waaw ma waxuma wax yi ki daw mais ki ñëw indil la texte ne la liiral jàngal la ko nga liir xam lan moo ci nekk yàlla defal la tawfiq nga gëm ko loolu loolu mbaaxu yàlla la beneen bi mooy Euh, li nga waxoon sànq mooy naka la ñuy def ba li xewoon démb mhm. euh, boroom xam-xam yi ñu amoon mhm. tey jii naka la ñuy def pour adopter xale yi ci li xew tey voilà loolu moom moo am solo parce que tubaab yi mhm. nekk doonoon fekk sëñ tubaab si def naa ñoom sept ans ci àll bi nee na dem naa ba luñ làkk ma xam ko buñ waree départ dama koy xam lu luñ wax rek xam naa ko mais mosuma ci wax benn baat bu dul merci nee na boobu rek laa ma si génn sama gàmm sama ne mais dem naa ba dégg seen seen ndax mas na leen a toppandoo ci dara alaaji Malick lu lu mu deful ndar def na fa lu ko lu tubaab ya nekk ndar lépp di tubaab lan la lu mu def ba ba rëcc waaw rëcc sëñ Babacar si waaw yaa ngi ko kii ak tubaab yi mun la deet hmm. jiitu naa leen jiitu naa tubaab yi ci Babacar hmm. eh, ndax sëñ Babacar mas na wane dara yu tubaab mu ngi noonu ñooñu dañoo adopté ñooñu nag il faut ñu am ko ci jamono bii hmm. mais ñun waruñ toll rek jamono bii baax il faut dellu fi ñu mooy ñu dellu fi ñu jógee parce que parce que Ablaye Sànk nee na bi dañ cee war a maanu. Hmm. te yow dégg nga dellu nga ne gëm nañu yont yàlla instant. Hmm. te fête bi su ma juumulee. loolu moom moo ko tax a jug. su ma la laajoon principe bu fête bi lan la. moom moo ko tax a jug laa la wax man. man xaw ma. léegi man dama nga xam loolu nag. waxuma dugguma ci principe bi. voilà man loolu laay bañ nag dugg bëgguma dugg ci. principe parce lu ko tax a jug. waaw yow il nga dugg ci principe bi. parce que mm-hmm. mm-hmm. da war a leeral benn côté. Mm-hmm. gëm nga yonent yàlla instant. ba ba yow nga dellu ne jullit yi dañ cee war a maanu. waaw parce que ngoone. da nga war a da nga ne. principe bi dañ ci war a demee ak modération. non pas modération ngoone principe bi nañ toog seen kër. ngoone non mën nga tegee sa baal ma ma wax la mais li xew tey li ko indi boo gisee li ko indi. Hmm? loolu jéggaani la. baal ma wax la. waaw ñun fête gi ñun dañ ci tooñ ñooñu. waaw dañ ciy tooñ yàlla tooñaale leen ci ñoom. ndax ñoom buñ ca dee def seen yëf. ñun dañ cee rax lii ñuy nett li tey nag. waa léegi ñun jullit yi xale jullit yu bëri bëri bëri dañ cee dugal. taxawaalu gi waaw léegi bi nag dugal ci sol lu bon dugal ci di mandi dugal ci di volé taxaw ci te bañ koo. loolu nag ñu ngi leen di yàqal seen fet sax léegi nag taxawaalu boobu nag hmm? lañ war a taxaw. Mhm. parce que taxawaalu boobu. moo ah. seetee xale yi koy def. Mhm. dañoo jéggaani. voilà dañuy gis ay émission yoo xam ne ñun du suñu émission. Mhm. wala ay film. yoo xamante ne ñoom tam dañ koy bëgg pratiquer. kon dañoo jéggaani jël fu jàmbur bëgg a làqatu pratiquer ko def ko. léegi nag loolu bu ñu ko defee après lu ciy conséquences yi loolu mooy suñu problème. xam nga yaa wax yar léegi. waaw pourtant ci sa biir kër. waaw ndekete am na fa ay toj-toj. yu tax ñu war laa yar. waaw te pourtant sa yaay ngi ci biir sa baay ngi ci biir sa maam ngi ci biir jullit nga. kër gi lépp ànd nekk benn. te ci biir kër gi dañ la fi dóor parce que am na ci yu sew yu ne ci biir kër gi. Mm-hmm. ay sàcc. Mm-hmm. ay laal la waxul. Mm-hmm. ay fekke ay waxtaan. ay nettali. dafa bari yu sew yu ne ci kër gi. ca ca ca ca ca beneen jikko ba la bokk. Mm. bokkul ci sa diine moo tax ñu war laa yar yow ba nga bàyyi ko ci kër gi rawatina nag bu dee mbedd mi. loolu yëpp nag ci éducation bi la. ah loolu mooy éducation de base. mais liy jóge ci mbedd mi nag moo lëpp doole. parce que yow mag boo yoree sax boo defaree ci kër gi baara ba mu ah, baax. bu ñu génnee bu ñu bu ñu génnee baax ci kër gi. waaw bu ñu ko yóbboo ci mbedd ba. baax lañ fay yóbbu. mais biir kër gi rek dafa am. lu doy lu lay tee baax gis naa nit di ànd ak. Hmm? ay ay nit ay group bu nit yoo xamante ne bokkuñu sax jikko. Hmm? ñooñu dañoo mel beneen melokaan. Hmm? ñu ne nit booy ànd ak nit mën na laa soppi wala yooyu déedéet saa dépend yow ci li nekk ci yow liñ rek li nga def si yow xam nga léegi yaa ko wax léegi ah. Serigne Babacar si rabbi taala ah. dafa ne jiitu naa leen ci tubaab bi ah. ça dépend li nga jiitu ki sa njaboot mais kooku dañ leen di fekkee ñuy def lépp mais bokku ci du ki dugal loxoom du ko utiliser yoonam nekku ci. mais bis bu ñu bu ñu leen di ramas dañ koy yóbbaale. yoonam nekku ci. waaw mais dañ koy yóbbaale bis. bokkul sax jikko. ñaata nag yow lan moo tax nga bëgg a jëlee lu baax ci sa biir sa biir kër bëgg a génnee lu bon ci mbedd bi. parce que yarin parce que parce que éducation de base bee baaxul ñu wax ko te dee. mais li la war a yare mi ngi sa biir kër. baaw li la war a tere mi ngi sa biir kër lépp rek sa biir kër la nekk. moo tax ma nekk biir kër gi. boo fa jëlee lu baax. waaw boo fa amee yow lu dëgër. waaw lu suur lu baax. boo génnee moom ngay yóbbaale. waaw. léegi yow ki la war a yar d' abord. Hmm. muy parent bi. Hmm. déjà dafa yarwul sax. Hmm. da koy gis ñenn ci parents yi. si amuñu éducation. léegi yow nooy amee noo ñàkkee éducation bëgg sa doom. léegi nag loo indi loo indi yow moo xam li la doon tere ci kër gi ne ku jël cent franc yi ne woon fii ba xët la ci ngay xale xam a tere nan la sàcc ak noo ko mën a jële nga dem nekk mag vingt ans vingt deux an xëy indi portable buy jar six cent mille dan laa war a xëtaat encore waaw laaj la foo ko jëlee hmm, yow la a loolu mooy suñu loolu mooy suñu suñu kii tey moo tax sànq ma ne am na yenn parents yoo xamante ne ñooy pousse seen doom ci lu bon parce que yow mënoo nekk si biir kër sa doom di la defal lépp liggéeyul wala liggéey mayu ko loolu mën na liggéey sax yem ci benn salaire lu lu lu lu yem a may. Mhm. mais mën na am salaire lu cent mille franc indi portable trois cent mille. Mhm. iPhone. Mhm. wala cinq cent mille. fan la koy jëlee kan moo ko jox laajoo ko ko. nga am soxla mu fajal la. courant ñëw mu fay. kon ba nga ko dóoree ca cent franc ya tooñ nga ko. yor dépense su kër gi. mais yow lan moo tax lijjanti kii li muy moyens yi mu yor yëpp fan la ko jumtukaay fan la ko jëlee. mais da nga ko war a liggéeyante. bis ñëw mu xëy am grossesse nga ne ko kam moo la def lii. ah nga ne ko portable bala la. c'est trop tard portable la ko def. <laughs> Ablaye waaw xam nga xam nga man toujours damay dellu rek ci ndax nit lu mu xamul rek sëñ Baara. Euh, dina ci def lu mu warta def. Mhm. wala mu wax ca la mu warta wax. Mhm. xam nga euh, boo seetloo ñun dafa am lu leer c'est-à-dire ñun suñuy feet ñun jullit ñi. waaw que dañ cee gis ñeneen di ci sonn. ñeneen ñi bokk ci leen ndax ñu dañ leen a jàngal seen diine lii la ñu yem ca. Mhm. waaye ñun jullit yi lakkum diinukum wala diin lakkum diinukum wala diin loolu mooy diine ñoo ëpp non question jullit ñi ñoo ëpp mais ëpp tax ñuy def lu a def duggee tamit du feeñ lan mais ñooñ dañ see duggul sax ngoon waaw léegi non même buñ ci duggul waaw mais dañ cee duggul boo seetloo fii nag musulman yi bu ñu duggee automatiquement day feeñ waaw mais waruñ dugg nag leen dañ leen di wax leen di leeralal lan moo tax waru dugg loolu lañ leen war a leeralal lan moo tax waru dugg yow mhm. yaa ngi dëkk ak ay nit mhm. ñoom dañ leen a yar si seen diine jàngal leen seen diine ne leen lii mooy suñ diine suñ téere lii la nangu lii lay bañ mhm. suñ amee suñuy feet lii ak lii lañ cay def ñu koy def yow lu la cax boo xoolee ñoom sax ñoo gën a rek les musulmans yi ñu waxate de waaw yow léegi yow lan yow lu la cax yow tey xoolal baaral mën nga dëkk ak euh, chrétien ñu wax ko ci koñ liggéente wu la xamul ci looy dugg xamul ci looy génn jàmm la sekk ak yow lu ñu la mais dëkk la musulman nga xool da lay yéernu boo gaalee oto fan la ko jëlee kii mi ngi dugg ci mi ngi dalay tuumaal sax léegi nag. maanaam ñenn ñi daal mais gisoo beneen. loolu melokaan boobu du suñ diine moo mel noonu de mais nit ñi lañ yarut si seen diine lañ yarut si seen diine léegi nag li li taxoon loolu ñu man cee raw mooy nit ñi ñu yar leen ci l'islam yar leen ci l'islam c'est-à-dire wax leen lii mooy l'islam te fii nga ci war a commencer fii nga ci war a yem wa tilka hududullah wa man yataadda hududallah faqad zalama nafsahu mais loolu tax mu jafe li tax mu jafe mooy. yar leen ci lislaam li mu jafe li tax mu jafe mooy ñi ko war a ñi ko war a joxe ñoo ko yoru ñu ëpp ci parents yi ay parents lañ rek. mais yoruñ lu ñu war a jox ah, yéen nag ko bëgg a bàyyee combat bi da ngeen ko bëgg bàyyee parents yi. non non xam nga man man par exemple du parents yi kese xam nga man éducateur parce que éducateur yu mel ni yow. ak oustaz yi ne ci réew mi tamit hmm. am nañ ci wàll. voilà maa ngi wax pareegu ma xam nga éducateur. su fekkee pédagogiquement dañ lay jàngal dañ laa la yow ki ngay jàngal da koy jàppee en tant que parent. Hmm. en tant que doom doom waaw. kon man ñi may jàngal man génne wa ma bariw nafsi génnoo ma ci sam bopp c'est-à-dire dama leen a jàppee comme samay doom ñi may jàngal kon man maa ngi cay def la ma war xëy na keneen tamit mu ngi cay def la ko la ko war kon su ma ne parent rek dama cee dugal sama bopp génnewu ma ci jàngalekat yow mi koy jàngal sax yaa ëppale ci parent bi parce que temps bi muy nekk ak yow du ko nekk ak yaay si mais ci yenn contexte yi donc conséquences yu ci ëpp mhm. sax ci oustaz yi lañ koy jëlee des fois mhm. baax nañ wax waaw si ah, déet déet bu ko ah! oustaz yi kat ñenn ci ustaas yi ba lu tax waxoo école bi. non ñenn ci non école ba léegi moom sax ñoom dañoo dañoo ñemeetul yar. ñemeetul yar ñoom. ñoom parce que boo xoolee école bu njëkk ba baax nañu waxante rek yéen ñëpp jaar ngeen primaire. Hmm. bu njëkk ba école ba lan la woon. Hmm. dañu lay éduquer boo ñëwee yenn mer yenn melokaan sol yenn yëre yi tilim yi leen naan dellu. Hmm. ñu woo sa yaay convoqué ko. ne ko xale bii jàng si melokaan bii la mën a am ak bii. boobu maître ñeme na dóor xale bi. Mm-hmm. ak ni mu koy dóoree. bu parent bi du du ko nettalee même bu ko nettalee parent bi du wax. mais tey yow ñeme woo ko. Mm-hmm. ok waaw Ablaye. waaw léegi euh, loolu nag li koy indi mooy. loolu li ko euh, dafa dafa ma perteloo sama film maa mm-hmm. voilà léegi li ma wax sànq mooy nañ del euh, parent bi voilà man jàngalekat bi man génnewuma si sama bopp jàngale ki nga xamante ni aussi moom mooy parent bi daf cee war a def lim lim ci war a def mais yow su fekkee ne tey dañuy jël suñu doom yi yóbbu leen ci école bi. école tubaab bii ñu leen yóbbu. nga xamante ni amul benn valeur bu ñu leen fay jàngal mhm. lu dut valeur ya yañ yoroon ñun fekkoon ko euh, mu nekk as ci xale bi sax dañ ko ciy génne mhm. ndax bu ah. fekkee da ngay jël xale bi di ko mhm. jàngal yow da ngaa am say droit ci say coparents da ngaa am droit des enfants da ngaa am droit nangam da nga loolu yëpp dugal loolu ngay dugal si bopp bi da nga koy raxasaat dañ koy vider ba mu set wecc même tuuti valeur bi nekkoon ci xale bi parent bi di ko ci def da ngay gis dañ koy vider ba mu set wecc kon gis nga conséquences yi nekk ci réew mi nañ ko waxte dee li ko indi mooy école école bii. école bii moo ñu yàq. école bii moo ñu indi lépp lu ñu dal. Mm-hmm. Jules moo ñu indi lépp lu ñu dal. si ñun mm-hmm. si yàq ñu ak yàqate ñu yàq suñuy valeur wëlbati ñu def ñu ay tubaab yu ñuul. te dara noonu la leen sonal de. mais mais fële léegi sëy yi amatul. ña ngay. taxe ña ngay daganal góor jigéen. mais yi rek dégg nga ko. gone la moo tax bu njëkk ba nit ñi di jàng école yi te yàquwuñu parce que parents yi dañoo amoon doole. parents yi. Ah. dañoo amoon droit yi. Ah. droit yi kon dellu ci parents yi. parents yi ak programme yi droit yi laalul woon dara. parents yi ak programme yi. xam nga da programme yi ah. xam nga boobu bokk ci. Euh, amul door xale loolu bokkul woon ci programme mais léegi daf cee bokk. mas nga gis mas nga gis donga daara eh. léegi loolu moo tax sànq mel ne programme yi loolu moo tax sànq sax éduquer xale yi ngoone léegi programme bi nag ngay duut baar ngoone Ablaye Dieng mhm. donga daara mhm. bi gën a magee ci yéex a génn ci daara ji. Mhm. ban âge lay am. ba dix huit ans dix sept ans. am na dongo yu am dix sept ans. Oui. université. Mhm. lakk nañu ba lakk. Mhm. université ba mënatunoo jàng fi mu toll nii. lakk kaar yi nga xam ne mooy yóbbu seen papa ak seen yaay ñu jàngi pour ëllëg entreprise yi dox. pour que ñoom ñu mën leen a jël ñu liggéey. mës ngaa dégg dongo daara bu def loolu. moom gis nga. doo ko dégg bi sedd baa ngi nii di ñëw. Mhm. yàlla naa ko gën a mën man dama daan dem juut fëgg jaay di leen di leen jox. ay tur ensemble yu ndaw ndawaan. Mhm. bu woo rek fukki dong nga jox ku nekk benn. parce que sedd baa ngi ñëw. Mhm. ñuy kof kofi. yor ay yeel yu wow koŋ te xam nga bu yeel woowee. amoo ndawal amoo yàpp der. suux bu mën a nëbb sax sedd bi. yax bi directement la ñuy kof kofi nga bàyyi leen ci loolu. di leen ci seetaan di leen ci seetaan ñu jaar ci loolu jaar ci loolu ba dem ci daara ji bay jàng ba nekk mag. Mm. te mësuñoo ñaxtu. Mm-hmm. mësuñoo manifester. Mm-hmm. ñi leen di ñaxtul sax ñoo tàmbali léegi di laal xaalisu état bi. mais léegi balaa ëllëg état bi di leen jox ay ay mbubu vert jaune rouge ne leen ñëw leen mars da leen di assa ñëw leen 4 avril. Mm-hmm. di défilé ñu xool dongo yi nga xam ne. président moo leen di dundal moo leen di yor. dañ koy soppali école yi xale yi di taxawaalu ci mbedd mi. xaalis la ñuy wut de. koy ci tari loo Fatiha sax mënu ko. waaw am na ci ñoo xam ne dun dongo. mais am na ñoo xam ne loo leen tari loo xam nañ ko mais am na ci xale yoo xam ne aussi dañuy xam li nu xam ba pare duñ ko tari. parce que danga leen a da nga leen di kókkale yow sax mi nga leen koy sant mënoo ko. waa léegi man. dama wut sa xaalis rek dem sa yoon ànduma ndongo daara yooyu taxawaalu ci mbedd bi noonu di xaalis. mais loolu formation. boobu ndongo daara na mën na yenn nga ko jox euh, mu dem dugg ci koñ bi ut. quelque mais yéen xale xale yi daan nekk fii ah, xale yi daan jóge ah. xale yi daan jóge bitim réew parce que man daara yi ma gis léegi lépp mi ngi ci biir xale yi daan jóge bitim réew alxuraan bi mi ngi ci biir ngoone yeneen ak yeneen ñëpp daan jóge bitim réew éducation bi yëpp xale daan jóge bitim réew ñu naan ay donga lanu yu ñëw fii ñu jaxasoog donga yi waaw il y a ans xam nga xam ngeen leen bu baax uh-huh. léegi ñoo yor cag-cag yi ci dëkk bi uh-huh. cag-cag boo arrêté uh-huh. di ko yónni français la lay wax di rax wolof boo dégloo xam nga ban pays la jóge danoo ñoo la gën a xam dëkk bi ñoom dong taxu leen woon a jóg jàng taxu leen woon a jóg dañuy ànd ak seen yaay ak seen baay di def li ñuy def. loolu nag boo leen jaawale dongo yi yaa ngi erreur. yaa ngi erreur ah. loolu dafa dal sénégalais yu bari nag. ñu bëri dañuy jaxase lu bokkul dañuy jaxase loolu sëñ Baara euh, xam nga li xew tey jii Cheikh Baara wax naa ko sànq gis nga ñun tey lu ñu dal si suñu xale yi rek ci école bii la la la. école bi rek la loolu moom. bul soog léegi réew mi benn mbir moo fi réussir mooy daara ji. Mm-hmm. jël ko ba fu la neex mais benn mbir dong moo réussir ci réew mi mooy daara ah. amul leneen lu fi réussir leneen loo fi gis échec la xoolal xale yi génnee ci daara ji tey hmm. xoolal concours international yi ñuy jël tey ah. xoolal yar gi nekk ci xale yi jógee ko ci daara ji bu baax xoolal daara bi éduqué xale di ko jàngal la wax <laughs> ah. ngoone moo tax xam nga man waxuma ñi ngay wax nee la yow ñi ngay wax ñooñu am nañ tur ah. ñu nekk ci mbedd mi 24 heures sur 24 di wut xaalis ñooñu am nañ tur ñooñu tudd ndongo daara hmm. ndongo daara mooy même ki ci yelwaan mooy ki kiy jàng 5 ba 7 mu wàcc dem yelwaan benn 100 francs 200 ñëw jox oustazam balaa 9 heures mu dugaat classe nekk fa ba 1 mu dem wëri lu mu lekk tuuti balaa 3 heures mu ñëwaat dugaat classe. nekk fa ba gudd day jàng. Mhm. te loolu moo amul oustaz mënu leen a yor. yow ñi ngay wax nii ah, soo leen xamee ci benn coin saa yow fa demee da nga leen fay fekk. 24 mhm. heures sur 24 kon ñooñu tudduñ ndongo daara ñun nag sénégalais dañoo xàmmeewut loolu dañ koo war a xàmmee c'est-à-dire ñun buñ bëggee tey jii réew mii nii ak xale yi di bàyyi di feetu di dugg si leen si seen yoon nekkut il faut ñu delloo leen ci daara yi ñu delloo leen jàngal leen l'islam jàngal leen suñ valeur u mag ñi jàngal leen Cheikh Ahmadou Bamba jàngal leen Sidi Hadji Malick jàngal leen Sëñ waaye lan lañ leen di jàngal Zilféeri Socrate Aflaton ak ak suñu yoon nekku ci ak tu astuut lañ leen di jàngal El Hadji Omar ak itam jour journaliste yi ngay dégg xale yu ndaw yi nekk reporter mhm. li ma gën a metti ci su ko déggee ci ñoom mhm. ci njàngum daara yu kawe yi. <laughs> université la ñuy wax de daara la ñuy employé daara yu kawe ah, yi. waaw ndox duñ wax école bu kawe bi. lu ndox duñ wax njàngum nasaraan mu kawe mi. ndox duñ wax naan njàngum tubaab mu kawe mi. waaye daara ju kawe gi kawe gi. <laughs> te léeg-léeg sax dañu naan ci daara yi rek yam foofu de. duñ ci duñ ci jaxase daara yi alquran ji ak daara yi français daara français bi. ça n'a rien ñoom sax bëgguñu ndax amu ci benn classe booy dem dégg ñu rax ñu fa. non non waaw kon kay. nan xam sa dugg suñu bopp. il faut kenn ku nekk ñu xam lan la jël suñu lislaam baax sa ànd ànd boo ah, ndax lay échec na. loolu may wax bi dafa échec ñu teg suñu bët. ah, ah. ah kon kay nan saña nag changé. programme yi ngay dégg nii ñu war a nekk président kenn du ko ci tudd ndax ku ko tudd tubaab bi ne la doo fi faloo. moo tax du dañ. waaye boo waxoon sa programme wax li nga gëm. Mm. boole waale ko ci wax liy yàq. ak fi mu yàqoo luy base bi. nit ñi dañ lay fal ci saa si. Mhm. Hmm? parce que nit ñi sonn nañu. sonn nañu. Hmm. gis nga ko jël doomam ju ndaw diggante anniversaire poussette euh, kanguru biberon <laughs> couche maanaam fexe na ba xale bi am huit ans neuf ans mais bëggatul a gis xale bi ndax jikkoy jinne jim ko defal. Mhm. ba xale bi rab la léegi. mu ne daara ja. boo toogul dama lay yóbbu daara ja de. waaw loolu la ñuy wax. dem sànni la foofu. que xam na ne bu fa demee baax. baax. même ñuy déranger da ngay gis benn man daara ji laa da ngay gis benn maire bu yegg si ne la damay kii de daf ma sonal. alors dugal naa ko école nanguwul jàng oustaz dimbali ma ci. baby sitting waaw moom dafa rate dafa faay. yow nga gis dox wëlbati guddi la sonal. ah si ak ñoo bëri ci jamono ji léegi. <laughs> ak moo bari ci jamono ganaar boo ko yaree ni muy yaree xaj. Ah. xaja koy reere bi benn ah. bis. Mhm. gis sa dafa am lu mu moom war ko see yar nodd ci nopp bi liqaam ci nopp bi. am na xale yoo xam ne ngénte la seen am na xale yoo xam ne ñoo yilif seen waajur. bien sûr loolu na looy tàggatoo. ah man daal damay ne euh, jeunesse bi. Mhm. jeune mooy defar avenir u ëllëg. xale mooy yor avenir u ëllëg soo bëggee sa ëllëg baax tàgg euh, nan la tàggat ci sa ndaw. Mhm. ba tax na damay ne nañ jiital ci ñoom njaboot gi. yarul mhm. diine yarul lislaam gëm yàlla doyloo ko bàyyi ko suñu bopp. incha allah yàlla na jàmm sax ci réew mi. di la ziar yow sëñ Baara la jox sa waaye tam bi tey amati na solo. loolu boo ko defee ñun la intégriste nga. ñëw na ci moment bi ñu ko soxlawee. Mm. vraiment mm. xam nañ ne li duuf si nag bi yëpp xajul si cin li waaye jukki nañ fi lu am solo. loo xam ne nit ñi mën nañ ko utiliser Ablaye Dieng jengeen bi tam maa ngi koy ziare. Mm. waaye duma taay itam di ziar sama borom kër monsieur Mbaye. ak ak ak ak ak sama rakk ji Fatima borom euh, borom tukuleur buuti. lu mu jaayil baaxul. Mm-hmm. waaw moom macha allah xale bu baax xale bu yaru la liggéey rek la xam yow xaw ma tricher sax yar nañ ko ci diine yar ko man xanaa mm. yaay design moom a génnee fii nag heure may ñëw télé moom daf naan télé ba nga jëm da ngay defar ba mu baax non walf <laughs> walf nga jëm mm. walf nga jëm da defar ba mu baax <laughs> mm. waaw ndax moo laaj loolu télé bu mag bi <laughs> macha allah télé bi ñëpp di déglu macha allah sans voix voilà ngi noonu jërëjëf Ngoné Niané Sassou madame Mbaye Ablaye yow itam am na solo amatina solo amatina solo Ngoné mayu la dara mais yaa ngi moom noonu la noonu la Ngoné sama kii la sama doom bàjjan la dinaa ko jox kii nag nuñ koy joxe yére maa lay jox sagar wala yaa jox dinaa ko jox insha allah maa ngi lay gërëm Cheikh Bara di wax ne li al alquran waxoon rek euh, ñaan gi mu waxoon rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin mm-hmm. yàlla may ñu ay soxna ak ay